asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen mission sociale euh, toute la ville en la samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ñu ngi jéggalu euh, ci commencé bi suñ euh, invité bi moo nekkoon ci yoon bi ak xat-xat yi moo ko waral ñuy jéggalu bu baax a baax suñ invité di Mame Mactar nekk vice président bu ONG Jamra ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw xanaa di yeesalaat suñuy jéggal rek xam ngeen. Ndeye Kumba Moro moom jaanam wàcc na ndax waxoon na ma émission bi suffisamment à mm-hmm. waaye depuis une de temps ñu ngi ci tali bi xat-xat yeeg wàccaay tabaski bi. Mm-hmm. voilà kon nag ñu ngi ciy jéggalu te am yaakaar ne li ñu fi dese ci ay simili. dañ fi mën a weccoo euh, seq ak yéen ay laaj ak tontu incha allah. ayca mi ngi noonu peut-être euh, question yu bari duñ ko mën a laaj comme ni ngeen ko xamee euh, Mame Makhtar Gueye ñu bari actuellement dañuy laaj ONG Jamra lan moo lool lool ci xeex wàllu ngóor jigéen. waa xam nga ñun. waaw ñu ngi ko sos ci mois de février 1983. Mhm. lii ñu bari di réere mbir mooy ñun ñu rek nekk ONG. Mhm. dañu dakkoon d'abord un journal d'alerte. Mhm. Euh, magazine la woon d'une trentaine de page format euh, Horizon. waaw ñu tuddee ko Jamra avec comme sous la revue mensuelle des dossiers sociaux. ça veut dire que weer bu jot dañuy jël benn phénomène de société. traité ko de fond en comble. Mhm. suñu premier numéro naturellement ñu ngi ko consacré woon au fléau de la drogue. interroger ay médecins ak yooyu waaye interroger tamit des anciens drogués repentis. Mhm. pour que ñu mën laayee biir xale yi. Mhm. seen expérience. Euh, naka la ñu def ba tomber dans le piège de la drogue. ak naka la leen yàlla dimbalee ñu def preuve de bonne volonté ba génn ci. deuxième numéro ñu consacré ko au phénomène de la mendicité ni ñuy exploité talibé yi. par de prétendus maîtres coraniques en fait c'est c'est des beneen numéro bi ñu consacré ko à la franc-maçonnerie beneen numéro bi nag mhm. quatrième ba ci la ñu doog a dugg ci affaire homosexualité ah, homosexualité voilà après nag euh, bi ñu demee ba journal bi àttanul suñuy activité nag ci lañ ko soppi nag def ko ONG mhm. voilà mu nekk ONG boo xam ne évidemment dafay continuer di xeex contre la dégradation des mœurs mais également di continuer di xeex mhm. contre l'injustice sociale parce que yow suivre nga fii def nga fi ay reportage sur le problème des anciens combattants de la guerre du Golfe mm-hmm. def nga fi ay ci mm-hmm. euh, la dissolution de la société de nettoiement ama Sénégal Jamra xeex na ba trois milliards yi leen état bi amel mm-hmm. jox nañ leen trois chèques de cent trente millions ça fait quatre état bi tas ko ba pare amel leen neuf milliards Jamra ànd avec d'autres partenaires sociaux Soxna Fatou Sow ba neuf milliards yi xàppati nañu cinq milliards jox leen. Mhm. voilà kon nag affaire homosexualité moo gën a tuuti. ci li Jamra di xeex waaye nag presse bi nag yooyu lañuy ñuy gën a sawar. parce que moo gën a am na ñu naan sax yéen Jamra yéen ay defal euh, homosexuels yi promotion promotion gratuite. ah yéen a koy defal góor jigéen ñi. lu tax ñu doon fóonante ñu ñef leen ci kaso bi loolu promotion la. parce que yéen a ciy wax tout le temps. ba ndaw yi ñu xamul woon sa homosexualité xam ko. waa xam nga booy dimbali xale yi di leen éduquer. Mhm. bul def euh, il faut il éviter de faire euh, li tubaab di tudd euh, se cacher derrière son petit doigt. Mhm. xale boo koy yar. avec la mondialisation il faut les informer des dangers qui les attendent. Mhm. ñu xam luy LGBT ñu xam lan mooy drapeau arc-en-ciel ñu xam tamit piège yi nga xam ne mu ngi leen di xaar ci kanam. notamment euh, di jéem a banaliser à travers des séries à travers des concerts des attitudes et des actes contre nature pour que xale yi dem ba banaliser ko dans leur esprit ba mu jóge ñu ne mais ñaari ponkalum góor yuy fóonante gon gémmiñ gémmiñ nekkee aayul Jamra dañu rëy làmmiñ di tànqal nit ñi rek mm. góor jigéen aayul c'est pour cela que suñu combat ñu étendre ko également vers les séries perverses qui relaient également des symboles homosexuels et des actes homosexuels mm. moo tax nag le CNRA nous a donné raison ba arrêté nañu la série Réewu Leen qui est interprété par des acteurs góor jigéen. Mhm. yuy damma loxo di def rosa ak di tisngalu. Mhm. voilà yooyu yëpp nag euh, ça rejoint li euh, les techniciens de euh, comment dirais-je du marketing digital di wax. Mhm. ñoom ñu ngi ko tuddee l'influence subliminale de l'image. c'est-à-dire loo tàmm di nga tàmm di woon xale bi lu bon muy ree nga di ko jaarale ci ay kaf xale bi di ree dafay dem ba mujj nekk une normalité. alors kon nag euh, looloo tax nag suñu xeex. du ñu bàyyi dara mu jàll. Hmm. parce que ñu leen di accuser que Jamra da leen defal promotion. di ngeen wax non ñu ngi arrêté kii. parce que di ngeen wax di ngeen promotion mooy koo xam ne da nga koy kii pour muy avancer. Hmm. mais chaque fois qu'on les attaque ils arrêtent. c'est réew ren l'a bloqué taxaw na la série euh, confession érotique bi canal doon dawal arrêté nañ ko fëgg ko 3 millions d'amende Euh, la série de euh, bi Walfadjri parce que Walfadjri sax ñaari du def erreur yooyu waaye mm. seytaane dikk rek. Mm-hmm. ñu tuddee ko le business du sexe. Mm-hmm. y a de l'homosexualité et de la prostitution arrêté nañ ko fëgg leen cinq millions d'amende loolu kay du promotion. loolu yëpp xew ja mais euh, Mame Matar lan moo tax fi toll nii góor jigéen am fit di imposer wu parce que di nga gis ni association sàmm. ànd sàmm jikko yi bi ñu defee seen marche boobu réussir ko ainsi de suite gis nga LGBT ay personne que ñooñu sax dañ leen a war a tere ñuy dugg euh, ci ci le territoire Schengen naka nga gisee la fait ñoom léegi euh, nëbbatootuñ mais dañuy dànkaafu euh, di menacer taxaw carrément di xeex ak pour seeni seeni droit waaw xam nga loolu comme hmm. on l'a toujours dit état bi am na ci faute bu rëy rëy am na ci responsabilité hmm. parce que mënoo nekk un état comme dans tous les autres états xam nga mm. législateur yi buy nas les lois mm-hmm. qui régissent la vie communautaire du ko inventé les lois ne tombent du ciel euh, législateur bi dafay sukkandiku ci li ñu tuddee les réalités socioculturelles mm-hmm. looloo tax en France par exemple le code civil français Euh, qui a été renforcé par la loi Pasqua de 1993 dafa sukkandiku sur les réalités culturelles françaises daal di xaraamal polygamie moo tax France boo fa takkee lu ëpp benn jabar c'est alors lu leen waay wax tooñ leen parce qu'ils sont chez eux waaw pourquoi nous nous n'aurions pas le droit étant chez nous avec nos réalités culturelles et religieuses quinze pour cent de musulmans te euh, te te te suñu euh, euh, nu mu tuddati texte de référence alxuraan suñu borom wàcc na ci fukki fatwa ak juróom-benn suratul anfal suratul ankabut suratul anbiyaay mm-hmm. di rëbb ak di xaraamal ngóor jigéen suñu mbokk catholique yi itam ils ne sont pas en reste ndax seen téere bi ñuy wax lévitique Euh, chapitre 18 verset 22 suñu borom ne coucher avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination donc législateur bi ci réalité yooyu yëpp la sukkandiku daal structurer l'article boo xaraamal ngóor jigéen am nañ ci droit mm. parce que nous on n'a pas reproché aux Français d'être des polygamophobes parce qu'ils interdisent la polygamie mm. nañ ñu respecter ñun itam droit mm. de bannir la la la mais léegi nag état bi fit bi mu am waaw di menacer waaw bi léegi yow bokkoo Euh, ah, ah kay maa jiitu. maa ngi sëñ Modou yaa ngi ci. ñun la ñu jëkk a interview. kon dañ la dañ la tere instant bi wala boo demee ñaan euh, visa Schengen euh, boo may la ko jox. non y' a y' a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mm-hmm. alors je disais donc état bi. Mm-hmm. naka ngay defee loolu ba ñëpp kontaan. ñu ne mm-hmm. ah on a une loi qui. qui protège nos valeurs muy article 319 qui réprime les unions contre nature ba ñëpp a kontaan. ce même état jaar ci suuf naan góor jigéen ñi ñëw leen jël seen récépissé. looloo tax nañu am fit pour répondre sa question alors premier euh, acte d'arrogance bi homosexuels yi bu posé ginnaaw bi leen état bi joxe fit en leur délivrant de manière illégale de récépissés mooy euh, octobre 2020 sëñ Modou Lo Ngabou euh, leader de Safinatul Aman mm -hmm. am na ñu koy tuddee sax la la police religieuse de Touba wax dëgg yàlla euh, umma islamique bi yëpp lay liggéeyal au la même de Touba. Mm-hmm. parce que chaque fois bu ñu dëgmale benn événement religieux Gammu Kazu Rajab il fait une descente avec ses éléments dans les marchés les luuma lu mu fa gis loo xam ne sëñ Touba bugg ko drogue sangara mhm. Mhm. mu saisir ko mhm. sans compter col yu bon yi jumbox out euh, check down alors la particularité bu euh, octobre 2020 dafa jot ay information qu'il y avait euh, loué par des homosexuels yu fay def racolage. Mhm. ñu bett leen jàpp leen une dizaine pamti pamte leen expulsé leen de Touba ñooñu nag ñoo informé seen nijaay yane France. Mhm. waa ADEOS. Mhm. qui est un lobby homosexuel français un des plus puissants. nee ko daal lii lañ ñu maltraité. kooku nag moo def lettre. adressé ko à Gérard Darmanin le ministre de l' français di ko jàmbat ñooñu nag daal di euh, jóg bind. Euh, euh, euh, ADOS ñoo bind. Mhm. Gérard Darmanin ministre de l'intérieur di demander que ministre de l'intérieur na interdire mu sëñ Modou Lo mhm. de tout titre de séjour interdire ko de séjour déclarer ko indésirable sur tout le territoire français et par extension mm au niveau des vingt-sept pays de l'espace Schengen mhm. ba ka Jamra mu metti ñu alors que il ne faisait que défendre nos valeurs on en a le droit Jamra jël position défendre ko ne du ñu nangu soldaarul islam bu day ni sëñ Modou Lo Ngabou qui défend les donc pour l' général du ñu nangu kenn di ko manqué respect rawatina di ko jébbal plainte góor jigéen. Mhm. ADOS daal ne ah yow da nga ciy dugg. daal di daw seeti Gérard Darmanin ne ko plainte ba ñu la joxoon contre sëñ Modou Lo Ngabou boole ci. Mhm. Makhtar Gueye bu Jamra donc on a deux premiers. Mhm. alors léegi nag. fi ñu gënee a rakkaaju nag mooy euh, l' ensemble des associations socio-religieuses mm-hmm. créé benn kuréel bu ñuy wax ànd sàmm jikko mm-hmm. Jamra membre fondateur la ci ñu daal di retenir la date du 23 mai de cette année Euh, pour def un grand rassemblement inédit à la place de la nation ex obélisque mm-hmm. daa di état bi daal il faut que nga veiller à maintenir la stabilité sociale parce que góor jigéen ñi ñu ngay tooñ te nit ñi bu ñu jógee di fayu Euh, ce sera ingérable te tooñ weesuwul jàkk ju day nii grande mosquée te suñu borom wax si suratul jinni mhm. wa anal de lillahi nee na jàkk yi samay néeg la yow góor jigéen nga bàyyi àll bi bàyyi hôtel yi bàyyi place yu bon yëpp yi ñuy mën a defee lu bon ñëw ca jàkk ja profitant de la fermeture de la mosquée euh, pour cause de corona di fa accouplé wu kooku mhm. tooñ la mhm. tooñ weesuwul au en août 2019 benn lesbienne bon mu dem ba xelam yedd ko mu daal di tourner le do mhm. à son association de lesbiennes de mhm. ut benn ilimaan mu dem xutbaal jëkkër ji mhm. ba jubale ko jëkkëram mu dellu ci néegu sëyam ñu ñëw fekk ko fa organiser une expédition punitive sànni ay xeer toj ardoisie toj vitres heureusement le quartier a réagi police ñëw am nañu ci jàpp mais am nañu daw ba ñu leen yóbbu di leen juger nag la presse n'en revenait pas bi président tribunal bi interrogé chef de gang bi. Mhm. ne ko yéen kii dëgg la ci yéen la bokkoon. mais am na droit bu demee ba def son examen de conscience moo xam ne lii ngor bu ko euh, diine mu génn ci mu di ko song di ko dóor pour lan waaye mu am ñàkk jom gu day ni ak wow bët jàkkaarloog président tribunal naan ko waaw sama coro la woon bon bu demee ba bàyyi ma. Mhm. man jàpp na ne qu'elle m'a trahi mhm. alors donc yooyu yëpp ay tooñ la bu ko defee nag tooñ yooyu yëpp boo ko dajalee. moo waral ànd sàmm jikko yi nag woote le 23 mai nan na état freiné lii et mm-hmm. meilleure manière euh, freiné ko mooy ñuy euh, augmenter mm-hmm. les sanctions pénales pour que mu mën a euh, jouer un rôle de d'épée de Damoclès par-dessus la tête des lobbies yi jigéen di Sénégal mu mën leen dissuader alors moo tax ñu demander la criminalisation du trafic de drogue mm-hmm. alors loolu nag ba ka ADOS bi porté on plainte contre moo Modou Lo Ngabou ak Makhtar Gueye yéegee daal ah bon yéen tamit yéen a ngi jóg di ci dugg daal di porter plainte Ababacar Mbow. Mhm. porter plainte sama doom baay Abdou Karim Gueye. xalif généraux ya signé woon suñu pétition itam. tamit ñu porter plainte sëñ Mountakha Mbacké porter plainte sëñ Babacar Sy Mansour la mën a toll. Mhm. il faut que nag te maa ngi profiter ci antenne réew mi di ko répéter. Mhm. état na def attention. et je l'ai souvent dit à à mon ami Seydi Gassama parce que bokk nañu plusieurs plateaux télé et il avait un mot qui revenait tout le temps dans mooy waaw il faut pas les stigmatiser c'est des mm-hmm. minorités sexuelles ma ne ko Seydi Gassama d'accord naa mm-hmm. waaye yéen le meilleur service que vous puissiez leur rendre c'est de leur dire les yeux dans les yeux minorité du tooñ majorité parce que Sénégal ba léegi ñu ngi am réserve mm-hmm. mais il y a certains pays y a eu des dérapages Mali au mois de euh, euh, mais bii passé jàpp nañ fa ay góor jigéen daal di leen faire subir nous ne nous ne l'approuvons pas hein. parce que dans un état de droit nul n'a le droit de se justice soi-même mm-hmm. waaye sàggante état bi moo ko jur alors ñu jàpp leen ils l'ont fait subir euh, le supplice du collier mm-hmm. yeew la ba nga dëgër jël ay pono solol na ko ba mu fii sotti essence taal ko mm-hmm. photo état la y a eu des collier en Ouganda y a eu des supplices du collier au Nigéria parce que population bi ñoo jóg di ko fajal seen bopp loolu ñun on souhaite pas mu am fii moo tax xuddiku balaa ngaa lakkale comme ni ko sa confrère di waxee Pape Alé mhm. Pape nee na tamit ku artuwul di nga atte mhm. ñun ñu ngi artu ñu ngi artuwaat ci antenne réew mi FM na état bi jël mesure am freiner les provocations inadmissibles des lobbies homosexuels Sénégal na ñu bàyyi tooñ bi parce que tooñ weesuwul nga dugg ci jàkk di fa sëy tooñ weesuwul euh, une ville aussi sainte que la la cité religieuse de de mhm. nga dem ca école lycée euh, kii euh, Serigne kii Serigne euh, Ababacar si jël euh, mandate benn ONG jox ko xaalis ñu ñëw soi-disant ne dañ fay organiser benn séminaire euh, à titre préventif mhm. contre la violence c'est bien waaye ni ñuy intitulé thème séminaire bi mhm. c'est suspect mhm. dañu ne contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire pourquoi basée sur le genre toutes les violences sont condamnables ndeketee genre boobu fa la ñu bëggee dëxiñ mhm. yu bon ya ñu yàlla dimbali woon ak euh, l'aide de Dame Mbodj et du CUSEMS euh, moo di le le le projet satanique mmh. de l'UNESCO de l'UNESCO de l'introduction de l'enseignement LGBT dans les écoles mhm. kon nag ñi dañu doon defaat une tentative mais grâce à Dieu échoué na parce que xale yi jóg nañu xam nga lan moo waral xale yi jóg mhm. li nga doon wax sànq te naan c'est une manière de faire la promotion au contraire parce que xale yi dañ leen yee lan mooy LGBT genre amalgame bi am ci genre ba xale yeew naka la ñu yëg thème bi rek ñu révolté on ne veut pas de ce yemuñu ci ñu daj ji mbaar mi def marche dem dem ca maire ba jógee ca maire ba dem seeti sëñ Babacar Sy Mansour qui leur a témoigné de son soutien affaire bi échoué voilà yooyu yëpp nag il faut que état y un terme avant que ça parce que jusque là on ñun ñu ngi téye xale yi bu leen dóor góor jigéen bu leen def acte de violence dénoncez leen dites ce que vous voulez mais ne les pas mais jusqu'à quand on réussira à les retenir alors il faut que état bi jël des mesures dissuasives fortes pour que ñoom ñoo xam ne ku fi defati lu mel nii dugg si jàkk ñaari góor jigéen di fa accouplé wu ku fa demati di attaquer une ex-lesbienne mm -hmm. parce qu'elle n'a eu que le tort de se de revenir sur le droit chemin mm -hmm. et cetera alors euh, état bi nekk ku ko defati léegi daan yi lii la ma tant que loolu amul les gens seront tentés et encore une fois nous ne le souhaitons les gens seront tentés de se faire justice eux-mêmes te loolu baaxul. voilà beneen laaj bi moom mooy est-ce que réellement euh, rumeur yi ñuy wax wala li ñuy wax ne euh, góor jigéen ñi dañuy jël xaalis bu bari di ko injecté wala di ko jox képp koo xamante ni pare nga pour defal leen euh, la promotion de l'homosexualité wala pare ngeen pare nañ pour kaasal leen pour seeni droit est-ce que est-ce que loolu ay préjugé la wala réalité la. loolu du benn préjugé. waaw njëkk nañ fi xeex benn tentative. Mm. te ñu ngi koy sargalaat. yàlla na ko yàlla yërëm le général Mamadou Niang mhm. ñoo fa ànd ak Abdou Latif Guèye 2001 la yàggul d'ailleurs sax je remercie son neveu parce que bi Jamra demee ba am ci ndam mhm. waroon ko décorer fii ci foire bi mhm. il était un peu souffrant mu yebal benn jarbaatam ñu jox ko euh, la décoration de Jamra daal di ko euh, nommé personnalité de l'année à l'époque alors ñun dañ ko demoon seeti mu recevoir ñu ñu jox ko ay copie de fax ne ko ah monsieur le ministre day lii day ñun ci trois hôtels parce que suñu ay militants ñoo fexe ba sàcc ko photocopier ko jox ñu on vous laisse on vous laisse le lire mu lire ko c'était des lobbies homosexuels espagnols belges français et mmh. allemands mmh. qui après avoir réussi a populariser le gay pride mmh. mooy seen gàmm yooyu ñuy def mois de juin c' est un peu l' équivalent du défilé du premier mai des travailleurs naan mm. waaw diwlin bi cher na nañ mm. yokk salaire ñoom tamit dañuy am seen i défilé mm-hmm. naan wéy qu'on nous donne le droit d' adopter parce que xam nga mënuñu am doom tout le mois de juillet ak donc juin juillet euh, alors ñu ne ko léegi ñoom nee nañu dañu bëgg une percée en Afrique de l'Ouest te bëgg ko jaarale par le pays de la Teranga du Sénégal mm-hmm. ñu ne ko ñun nag alerter la ñu mën yéen a yore kaaraange yi ñu ngi la yëgal tout de a des informations qu'il y a des communautés musulmanes qui sont disposées qui son prêtes à y laisser leur vie parce que du ñu nangu dëkk bu tedd fii Bamba tëdd Maodo Baye Niass ñu ne Sénégal inauguré na l'ère des gay pride en Afrique de l'Ouest mm. mais keroog général bi dama gis mu dindil na ci il avait les, les larmes aux parce que ne na il ne pouvait pas imaginer dëkk bu teddee nii ay sénégalais di nekk en complicité avec des lobbies étrangers pour ñu organiser fi gay pride mm. on lui avait donné le nom d'un d'un d'un patron de presse bu ñàkk jom mm-hmm. qui leur avait fait les réservation au niveau des hôtels alors bref au bout duneur heure d'audience ba mu xool suñuy preuve ak yëpp si suñu kanam la au secrétaire am ne ko defal ma benn note euh, xamal xamal xamal euh, hôtel yi pas seulement trois hôtels yi ma jam ra jox waaye na ko élargir à tous les réceptifs du hôtel hôtelier du Sénégal mm-hmm. ku fi héberger des délégations d'organisateur de Gay Pride sous quelque forme que ce soit mhm. di nga nekk en contradiction avec l'article 310 du code pénal te yoon mhm. dana dal sa kaw c'est mhm. comme ça qu'on a fait échouer la la première organisation de Gay Pride kon pour tontu sa question ils avaient mobilisé des dizaines de millions corrompre mm. benn patron de presse et d'autres éléments euh, de la société sénégalaise pour ñu organiser ko kon li nga wax c'est vrai ñoom ils mobilisent de l'argent pour faire passer leur message ak pour tamit lawal seen géew. Mhm. ñoom yamatuñu ci seen mbon dañu ne na ñëpp a bon ñi ñun. alors loolu benn exemple la mais mhm. après y en a eu mhm. yoo xam ne combattre nañ ko. te loolu émission euh, bu yaatu la laaj euh, benn bi moo di euh, l'édition 2014 de la Biennale des Arts. Jamra oustaz Adom bu ànd sàmm jikko ak ndem si yàlla si Mouhamadou Bamba Ndiaye ñoo ko xeex. ak moom du Gomis le reporter photographe de Walf. ñun ñoo dem dans les sites d'exposition particulièrement de benn baa ngi ci rue de Rufisque on n'en croyait pas da ngay ñëw mhm. à l'entrée ñu defal la ngan di banderole ma première expérience en tant que lesbienne mhm. ba pare à l'entrée ñu wane ngan dim poupée mhm. latex euh, mu takk ci ndigg bi benn ce qu'on appelle euh, euh, le sexe toy donc comme que entre lesbiennes euh, euh, dañuy euh, le sexe masculin waaye boo duggee ci biir hall exposition ba ya fa ne teggin mayewul ma di ko répété ci micro. Mm-hmm. Euh, réew mi. Mm-hmm. ba ñu demee ci deuxième euh, site d' bi fii ci euh, Sicap Rue 10 derrière le poste de santé Gaspard Camara c' était pire ngan dim pancarte à l' entrée te li ci gën a métti entre parenthèses l' entrée était gratuite. Mm-hmm. ay boy yu am 12 ans 15 ans. di dugg di seetaan. xale yi di ree di ko def kaf <laughs> eh, eh, xoolal kii xoolal kott na ko. et cetera alors foofu banderole bi ñu daal di bind. pour une meilleure visibilité gay au Sénégal alors euh, ñu ma la limal hmm. waaw boo fa duggee nag ay euh, exposition grandeur nature mare de Italie yëpp ay promotion LGBT nous on n'en revenait pas ñu ne lii fu état Sénégal nekk alors heureusement ñu doon wër benn euh, plateau pour exprimer notre indignation mu gi sa naataango Aminata mbay bu euh, euh, Touba euh, kii Lamp Fall TV. Mhm. defal ñu plateau bu yaatu. Mhm. alors Jamra Bamba Ndiaye. Mhm. Mamadou Gomis de le photographe de Walf. Adama Adama Mboup bu ànd sama jikko yi on a fait un scandale dans ce studio parce que le ministre de l'intérieur le ministre de la culture dafa yabaloon monsieur Diop xaw ma naka Diop. qui était le directeur de l'exposition ñun ñëpp ñu dal ci kawam. ne ko xanaa yéen en tant que responsable moral de de l'exposition de la Biennale des Arts nga xam ne depuis Senghor dafa sell euh, artistes si venant de différents horizons di fa ñëw sur l'art plastique sur la teinture sur et cetera qu'est-ce que c'est que ce délire xam nga lu mu ñu tontu. Mhm. tontu bu irresponsable daa ne way vous que l'exposition a deux volets il un volet in euh, donc in en anglais c'est les exposants qui par les différentes étapes mais il y un volet off foofu moom c'est des exposants free et te ñun état Sénégal amuñu droit de regard sur le contenu de leur exposition ñu ne ko nag nga baal ñu monsieur le directeur mais c'est irresponsable bu fekkoon dans le contenu de leur exposition dañ fi dañ ci profiter hmm. di fi dugal cocaïne wala héroïne nag looy di wax alors bref le débat a été houleux mmh. la fin de l'émission ministre de de, la culture hmm. Abdoul Aziz Mbaye moo woote nee nañ ko paasuwaay ji en pleine émission mu ne waa ji yii Jamra wax ak gars yi demal nga tëjal ma site yooyu parce que y a une dizaine de sites pourquoi ñaar yooyu di ci particulariser mm-hmm. waa ji ne ko waaw puisque nous sommes le 31 le samedi 31 mai mmh. 2014 bon xam naa bu lëndee je leur dire mu ne non non non y a pas de lundi demal tout de suite nga tëj alors grâce à cette émission sur place on a obtenu la fermeture de deux sites d'exposition qui qui la promotion de de, l'homosexualité et du Euh, c'est une occasion de dire que yii mm-hmm. réew mi di def mm-hmm. te yow toujours ngay nekk à la pointe du du, du bu leen ko xeeb mm-hmm. parce que dana dem ba def des effets inattendus Inattendu. parce que am na yu bari état bi du ko yëg c'est à vos émissions kon keroog à travers l'émission sa naataango Aminata Mbaye ci la ko état bi yëgee daal di tëj alors kon nag damay confirmer ne loolu il a fallu mobiliser beaucoup de dizaines de millions pour def ko kon ça confirme li nga que effectivement les lobbies mhm. yi mettent de l'argent pour di jaarale seen promotion ci euh, ay gay pride euh, comme tentative bi amoon 2001 te mu échoué ak ndimbalu le général du Niang di ko jaarale ci ay exposition d'art euh, comme bii ma la nettali et qui a été finalement arrêté di ko jaarale tamit ci ay artistes loola waraloon suñu jàmmarloo avec Wally Seck en ah deux mhm. mu di t-shirt boobu mu soloon. man maa ko. Mhm. parce que dañu ne Sénégal euh, war a njaboote ñëpp te nit day juum ma ne bu leen plainte bu leen def dara je vais lui parler. xam nga lu ne dégg naa ko ci surtout ba ma mhm. demee kër euh, baayam métti woon na coow li bari woon na waaye bref Wally a reconnu sa faute et il a dit ba mu koy sol c'était tout à fait spontané et sa femme me l'a confirmé daf dafa ne comme que da doon dem concert man maa ko ne il fait chaud on est en plein mois de juillet te dafay célébrer la victoire des Lions contre euh, Ouganda maa ko wax mu sol affaire bi alors waa li jël engagement ne dootu ko sol ma ne ko nag maa ngi lay rappeler ni pour nga bàyyi ci xel ëllëg que t-shirt bi ñu tuddee ko le t-shirt arc-en-ciel c'est le symbole de ralliement par excellence de la communauté homosexuelle mondiale ni Sénégal amee drapeau vert jaune rouge Euh, France am bleu blanc rouge États-Unis am bandeau bleu blanc ak les cinquante étoiles et cetera góor jigéen ñi dañuy jël l'ensemble des couleurs du monde concentré ko. Mhm. t-shirt am na. bracelet arc parasol arc mhm. rawatina yaa ngi ko sol ci période boo xam ne période gay pride la. Mhm. nee nga da doon màggal la victoire des lions. booy màggal victoire des lions yaa xay lu la teree sol maillot lions yi. bref il a reconnu sa faute ba nee na dootu ko sol affaire bi jeex. boo gisee bi encore nga ngeen porté ay plainte ay danseurs am woowu mag woowuñu kenn mhm. parce que bii c'est le sommet de l'agression euh, contre nos valeurs ndax sa naataango humoriste sa Ndiogou mhm. ah d'habitude day ñun ba ñu nekkee xale daan seetaani ay ndawara bi na ki ay sabara ki tànn bér ñaari punkal bu ñuy fecc di tëb di dal di tëb di dal ba jegeyantoo ba war a conclure dañ ko daan conclure ak loolu ñuy wax ndaat saay mhm. wala ndaat tëll waaye ndaat fóonante mhm. buñ ko bàyyi woon mu jàll musibaam mhm. d'autant que et tout le monde le sait euh, Jamra c'est vérifiable c'est le mode de congratulation de la communauté homosexuelle allemande allemand euh, euh, góor jigéen allemand yi du ñuy joxante loxo tuñ ak tuñ kon loolu bu jàlloon maara day taal yi bu école tijjee di nga gis xale yi cours récréation yi eh booy naka vacances yi gëj naa la alors boo gisee nag ñoom ñu ngi defoon toj-toj bi le samedi 12 kenn déggul Jamra le 13 le ba le 22 xam nga ñu lu ñu ci jubloon. Mhm. par attitude bienveillante ñu ne ah peut-être qu'ils se sont trompés comme t-shirt Wally bi peut-être qu'ils se sont trompés comme le sac de góor jigéen bi fi Wally bëggoon lancer te ñu xeex ko mu bàyyi ko donc donnons leur une chance euh, pour faire amende honorable mhm. mais on a été surpris euh, du contraire parce que ki ñu wax Ameth Thiou mhm. au lieu de reconnaître sa faute et d'avoir l'humilité de, de s'excuser, mm -hmm. il a proféré des menaces graves dans les réseaux sociaux. sol lunette Al Capone yu ñuul kooku. Mhm. air menaçant naan ku ma ci adressé ti parole ci lii dinaa la yóbbu Barzak Barzak mooy alaxira mhm. donc c'est une menace de mort. loolu waral le procureur dugg ci affaire bi. Mhm. et nous la remercions. nous lui avons écrit une lettre pour le féliciter parce que bi scandale bi di am moom fekk ko fi dafa demoon umra ji waaye il a été davantage indigné par les menaces de ce gars-là mu daal di wax euh, brigade de mœurs ne il faut les ne il faut les interpeller gars yi ne ah on, les convoque mu ne non dem leen ngeen arrêté leen on les a arrêtés téye leen jugé leen le 29 le 26 euh, bi. génn euh, war a génn ñu fëgg leen un mois ferme léegi avant verdict bi nag. Mhm. temps bi bëreetul mais. avant la communauté homosexuelle. Mm -hmm. de la diaspora ne nañu fexe intoxiquer les juges mhm. pour discréditer Jamra ñu daal di mandaté punkalum góor jigéen bu xeesal ba weex tàll mu naan Matar dey amul lu mu wax doomam a ngi nii États-Unis di prostitué wu xam naa rue ba mu ne quartier ba mu ne am na ñeenti faru américain mu ngi fii xam nañ ko bàyyi ko rek mu ngi États-Unis di fi lëmbale mhm. man ma ne tekk rek fekk maam ma maa leen lalal piège parce que yëgoon nga ne suma doom amoon na fi ay problème euh, daaw Euh, man maa woon la commissaire Bara Sankaré ne ko ma fille a disparu mu ne ma depuis quand ma ne ko démb mu ne waaw am na des famille des fii ci disparaissent dix dix jours te duñu ma ne ko waaw mais fii y a des parce que mosul fanaan àll mu ne ma jox ma signal ma am ma jox ko yëpp ñoom ñu commencé def seen recherche je résume alors ba ma yëngal tam réseaux euh, ma Mati Trois Pommes qui m'a beaucoup mm-hmm. euh, le lendemain soxna Fat Sow Laay qui habite là qui est très connu seen kër moo jàkkaarloog euh, mausolée Seydina Limamou mu woo ma ne Makhtar man dama dégg coow li ci réseaux sociaux yi sa doom a ngi fii ma ne ko ah bon xam nga ñun on était voisins ak ñoom pendant dix ans dëkkoon naa fa euh, ay doomam ak sumay doom dañuy demalante ay anniversaire ak yooyu. Mm. mu ne ma fii lañ fanaan ma ne ko ah, lu tax ma woo ko jëlul mu ne non dafa doon neloon portable bi xam naa daf ko fay. ma ne ko ah, kon indil ma ko mu ne ma maa ngi nii sa buntu kër dikk rek mu sonn ñu ubbil ko xale bi egsi ma jël sama téléphone woo commissaire Bara Sankhare waxaguma sax mu naan ma Guèye patientel jox nga ñu ko on a envoyé les signalements partout ba ci frontières yi. Mm-hmm. mu ñël en tout cas nous police on a encore rien trouvé mais on continue de chercher ma ne ko waa ah, mais yàlla baax na xale bi feeñ na mu ne ma ah bon anamu ma ne ko mu ngi nii daal di ko expliquer comment la famille Layène la ne mu ne waa d' accord kon ameen la ma ma wax ak parce que moi aussi foog ma conclure sama rapport. Mm-hmm. que bi ma koy yóbbu ci yoon bi. taximan bi jàpp RFM à ma grande surprise ma dégg le le, le lieutenant Diassé Dioum mm -hmm. waaw ñun police gis nañu xale bi dañu jël suñu appareil GPRS géolocaliser ko ci benn oberge fa lañ ko fekk xooluma yi fenn ba ma demee ba ci patron Bara Sankhare ma tegal ko audio bi mu ne mais pourquoi il a dit ça ma ne ah il faut corriger parce qu'il ment yow maa la ko indil mu ne non yaa ko indil nous on n'a rien trouvé ma ne ko lan moo waral on l'a trouvé et puis li gën a ñaaw dans une auberge mm-hmm. y a une manifeste de yàq der mm-hmm. mu ne ma waaw on va waaye daal may ñu rek on va lui parler alors bref Baba Aydara le correspondant mm-hmm. de Sud euh, de, RFM à, aux États-Unis ñëwoon fi par hasard en vacances ñëw di ma massalu alors ba proposé ma sax ne ma li gën il faut que ta fille s'éloigne des champs de bataille de ton père euh, ñoom ils auraient dû avoir le courage de s'attaquer à son père mais c'est lâche de s'en prendre à une fillette de rien du ba daanu nag xamati ne euh, euh, amatuñu argument mhm. naan waaw avant euh, famille Layène bi di ko indi jàddoon na fee demoon na ca jaaykatu sëng ya mhm. demoon na ca auberge yooyu waxi ku daanu saret la mhm. waaye c'est un mensonge de dire que la police a découvert ma fille te je la police m'entend c'est un man maa ko indi du dëgg auberge bi ñu doon wax ay fen la mhm. maa ko indi indil ko le commissaire Bara Sankhare alors bref temps bi jeex na man nax leen nag man nax man nax góor jigéen ñi ne leen xale bi ay Aïdara yóbbu na ko États-Unis fa lay eggale njàngam gars ni ah tey lañ koy lalal ay plan o oh, diw mu doxaan ko dinañ ko drogué dinañ ko nangam sexe teeb ko wane ko ci réseaux sociaux yi yàq deru baayam ba dégg nga euh, ñoom Ameth Thiou ak euh, comme que verdict bi c'est le 6 te on est le 4 les juges sauront que euh, Jamra n'est pas crédible ndekete seen famille baaxul seen doom yi c'est des prostituées c'était ça l'objectif ma bàyyi ba ñu yuuxu ba wax ba géex mhm. ñaari góor jigéen la ñu yónni daf seen i montage ko góor jigéen bu mag ba mhm. ba pare dem sama page Facebook roñ lu ñu fa fekk yëpp <laughs> élément bu ne ñu commenté ko góor jigéen boo xeesal ba weex tàll ak beneen góor jigéen bi xob bi tuñ bi te nekk Allemagne la xaw ma Italie mhm. ñoo yoroon boobu mission satanique ma bàyyi leen ba ñu wax ba géex rek ma bombardé lépp ma daal def benn vidéo ne xale bi elle n'a jamais mis les pieds à l'étranger encore moins Gambie bu jege bii sax mosu fee voyagé mu mel ni douche froide nag. Mhm. par consequent ma ne yeneen fen yu sew yi comme que fen bu mag bi moo doon que ma fille est alors qu'elle n'a jamais sa vie comme que fen bu mag bi màbba na. Mhm. yeneen fen yi laajul débat. et par conséquent il faut pas s'attendre à ce que Jamra di wàcce dans les caniveaux dans les fos septiques toog fa ak ñaari punkalu góor jigéen naan maa ngi débat ak ñoom su boobaa yàlla dana rëbb Jamra on le a jamais. comme que mhm. fen bu mag bi màbba na seen plan yàqu na. le le juge va se prononcer alors effectivement le le 6 juge bi jox ñu dëgg ñu fëgg leen une peine symbolique de un mois. Mm-hmm. alors loolu nag euh, defuñu ko par méchanceté ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaye acte bi la ñu condamné. Jamra n'a rien personnellement contre Ahmed Thiou sa femme m'a appelé di jooy et tout ça on n'a rien contre Amady Badiane mais dañ fi naroon jàllale benn acte bu bu vulgarisé woon bu jàlloon. xale yi dinañu jël le mode de de de fóonante gémmiñ a gémmiñ comme mode de salutation et il ne fallait pas que mhm. ñu bàyyi la ma Makhtar Gueye nga tàggatoo xam na amoon nañ question yu bëri yu ñu bëgg a aborder mais on a perdu. Mm. Euh, trente minutes ma bàyyi la nga tàggatoo ak euh, auditeurs yi. waaw waaw mhm. en tout cas euh, comme ni leen ko Ndeye Comba waxee rek ci entrée discussion bi. Mhm. Jamra du fi gan. kon nag 38 yi ñu perdre tey du dara on mm. aura l'occasion de rattraper de se rattraper ça et mm. d'aborder beaucoup d'autres sujets mm-hmm. euh, notamment franc-maçon yi léegi rakkaaju nañ ñoom tam mm-hmm. fii may wax yow ils sont en incha allah bu conclave bi jeexee parce que dañuy def benn le 16 dinañ def beneen seen seen dernier assemblée générale le 30 kon nag Jamra ngi dajale le maximum d'informations su boobaa incha allah bu ci ndey Kumba Moro bàyyee xel. ñu def seen émission ñu amaat émission incha allah kon nag ñu ngi gërëm. Euh, toute mm. l'équipe. Mm-hmm. de Rewmi FM di leen ñaanal parce que très souvent ñoom dañuy jël des thèmes de société yu soxal askan wi. Mm-hmm. comme ni ko Kocc Barma di waxee rek ne buy boo ko tëjul doo xam lu nekk ci biir. Mm-hmm. te yéen da ngeen di toj buy rek pour euh, faire tomber les tabous yàlla na yàlla dëgëral seen liggéey. a euh, commencé par euh, kilifa gi. Euh, président Mbagnick Mbagnick qui, qui est un ami de Latif de très longue date. Mm il a toujours suivi nos combats il nous a toujours encouragé yal na yàlla dëgëral taxawaayam yal na yàlla dàqal Sénégal seytaane. yàlla na yàlla nasaxal pexe lobby homosexuel et maçonnique suñu kilifa diine yàlla na yàlla ñoddi seen fan mu ànd ak wér yal na yàlla def jàmm ci réew mi laqal ñu Sénégal fu yàq yeegul asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mame Makhtar Gueye bu euh, ONG Jamra ñu ngi koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen suñuy auditeur ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ñuy jéggalu bu baax ci question yu bari yi ñu bëggoon aborder mënuñ ko aborder euh, parce que am nañ euh, li nga xamante ni Mame Makhtar dafa xaw a tardé pratiquement trente minutes on va se rattraper kon ba samedi prochain incha allah ci beneen émission. beneen thème ak beneen invité.